dégg ñoo ngi ñaan suñu borom mu boole ñu ci jaam yi muy gindi ñu ngi woon ci suuratul ahzaab borom bi defaloon na tawfiq ba ñu yegsi woon ci laayee fukkeel ak juróom kon tey ñuy tàmbali ci laayee fukkeel ak juróom-benn mbokk yi xam ngeen ne Alqur'an téere bu màgg la téere bu rëy la. loolu saa bu ñu tiimee alquran rek nan koy teewlu nan koy fàttaliku téere la boo xam ni borom bi subhaanahu wa taala ay waxam la te waxi yàlla melokaan la ci sunu borom kon sunu borom ni mu màggee mbokk yi yëgle ni alquran ji noonu la màggee téere la boo xam ni qur'anun majid sunu borom da koo tagg bal huwa qur'anun majid fi lawxin mahfuz alquran ju tedd la sunu borom def ko ci àlluwa joo xam ne ju ñu wattu la loxoy seytaane du fa yegg waaye loxol yàqkat du fa yegg kenn du ca dugal tamit lu ci bokkul woon mahfuz dañ ko wattu seytaane yi duñ ko jege yàqkati doomu aadama yi tamit kadalik téere la boo xam ni anzalnaahu ilayka mubaarak téere la bu ñu wàcce ci yow yonent bi saa sallam muy téere bu barkeel li yaddabbaru ayaati ngir ñu mën ko di seetantal ko loolu rek da lay wan ni kon mbokk yi bindab tafsir lu am solo la ci dund julit bi ndax anzalnaahu ilayka dañ ko wàcce mubaarakun mu barkeel bokk na ci jubluwaay yi am mooy li yaddabbaru ayaati ngir ñuy seetantal aaya yi xam ngeen nit lu mu xamut mënu koo seetantal waaye mu teg ci ne wali yatadakkara ulul albaab ñi nga xam ne ñooy borom xel yi ñu man cee waaru man cee fàttali téere la boo xam ne suñu borom tagg na ko ne na yahdi lillati hiya aqwam maanaam kuy wut yoon wu jub moom te gaaw suñu borom mu ni wii mooy yoon wi gën a jub mooy yoon wi gën a gaaw suñu borom mu ni tanzilu min arrahman arrahim kitaabun fussilat ayatu qur'anan arabiyan li qawmin yaqiluun tanzil mi ngi wàcce min arrahman arrahim ci yàlla mi nga xam ni mooy borom yërmande fii ci àddina ci àllaaxira kitaabun téere ngi boo xam ni ëpp naa xeeb ndax fussilat ayaatu dañoo faram fàcce fiñti xereñe aay alif raam raa kitaabun uxkimat ayaatu summa fussilat min ladun xakimin xabir téere ngi boo xam ni sunu borom dafa xereñe aay téere ngi boo xam ni sunu borom mu ni téere la bu ñu faram fàcce ndax mi ngi bàyyi ko ci ko xereñ alif laam miim sunu borom mu ni dalika alkitaabu téere bii ngeen di tiim day laa rayba fiihi sikk sàkk amu ci hudan njub lay jur lil muttaqina ñeel ñi ragal yàlla subhanahu wa taala loolu boo ko toppoon ba ñëw ci bal huwa qur'anun majid fii lawxin mahfuz yëpp mbokk yi ay xeeti tagg la yoo xam ne sunu borom da koy taggee alquran gaa yi naan law laa nuzila alayhi alquran jumlatan waxida yàlla mënut ndax bu ma noon day wàcce na alquran kaamil bi ni ñun mu ñëw ñu bëpp ci suñu kaw suñu borom mu ni déedéet kadalika nii mu ñëwee di wàcc par aaya par aaya li nu thabbita bihi fuaadak li nu thabbita bihi fuaadak ngir ñu mën ci gën a dëgëral sa xol moo tax bu weeru koor wi dikkee ñu topp alquran ji taraxarax yi rek benn kaamil bi yëpp ñu bëgg koo firi ci weeru koor damaa jàpp ne loola ci fooy alquran la bokk ndax lam lay wan mooy jariñu ga ci jullit bi war a jariñu dëgg du am ndax su doon dana am kon sunu borom day wàccee doo téere bi benn yoon comme ni ko yéefar yi doon bëggee sunu borom day jël téere bi ni ko bopp sunu kaw mu wàcc sunu borom mu ni déedéet alquran ji tey nga dégg lii su bëgg dégg la ca des affaire bi di yéex di wàcc xasbat xawaadis ah sunu borom ni li nu sabbita bihi fuaadak te loolu mooy li am ndax nit ki saa buy ami jataay di déggu alquran sa bis bu nekk rek bu dee yàlla namm na mu jariñu am na lu muy def ci xolam yàlla na sunu borom boole ñu si ñooña kon sunu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci suñu tàmbali bind bi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما kon laay yooyu ci fukkeel ak ñaar fukkeel ak ñaar mooy nekk sunu bind tey bi xusni tawfiqi albaari jalla fi ulaa gisoon ngeen ci sunu bind démb bi sunu boroom di ñu nettali as lëf ci naafiq ak i melokaanam salafu saalex day ulaayika al axyaar nga xam ni nit ñu sell ñu jub ñooña nga xamee ni jamono dootul dajeeteeg ay nit yu baax te sellee ni ñoom bu ñu mësaan di déglu alquran mbokk yi aay yuy dal ci kaw bopp yi yegsi ñoom dañuy joxoñ baaraamu tuuma seen bopp walis ka nga naan aaya jii de diw la walis ka nga yaakaar ne yow mucc nga ci déedéet da ngay tuumaal sa bopp bari waana moos kuñ lay nettali ab aaya day wàcc balaa ko yonent bee firi moom féetale ko boppam rawatina nag aat aaya bu safaanu saa bu mbaax dikkee mu jiiñ ko ay nit waaye saa bu safaan dikkee moom boppam la koy jiiñ te loolu lu am solo la ci doxalinu ko gëm yàlla ndax day tax ay jéegoom di gën a barjëm ca kanam kon sunu borom subhanahu wa taala mi ngi leeral ay melokaan ci melokaani naafiqi gis ngeen ca suuratul nisa borom baa ngi leen fay melal di wax ni mudabdabina bayna dalik ñii daal ay cëkkiñ ca kañ lañ teguñ tànk fii teguñ tànk fële laa ila haulaai wala ila haula faruñ fii faruñ fële ida laqu alladina amanu ca suuratul baqara sunu borom di leen melal te suuratul baqara mbokk yi saar bu yéeme la tàmbali bi gis nga catégorie nit ñi yépp sunu borom daf leen traité ci tàmbali suuratul baqara sunu borom dafa jël ay quelques aaya di melal ñi gëm yàlla ah sunu borom mu ni hudan lil muttaqin alladina yuminuna bil gaybi wa yuqimuna alsalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladina yuminuna ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil axirati yuqinun mu ni ulaika ala hudan min rabbihim ñii ñoo teg seen tànk ci yoon wi wa ulaika ñii nag humul muflixuuna ëllëg ñooy texe léegi nag kenn ku ne ci ñun mbokk yi na xool safxa boobu di genn wàllu safxa bi njëkk ci suratul baqara mu jël boppam seetu foofu mu xool ndax moom bokk na ci wala déet inna alladina kafaru catégorie bi ci topp mooy ñu weddi ñi sawaun alayhim andartakum am lam tundirkum laa yuminuun xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim ba aaya ja jeex gis nga suñu borom jàll ci ñetteelu kat muy naafiq yi nga xamante ni ñoom bokk na ci seen melokaan yi ma soxla woon mooy ida laqu alladina amanu bu ñu dajee ñu gëm yàlla qaalu amanna dañuy wane kanamu ku gëm sérieux sérieux lu wa ida laqu alladina ah wa ida xalaw ila shayatinihim bu ñu dajeeg seen gaa yi ah qaalu ñu ne inna maakum ñu nag yéen a far ah gaa yi dañ leen di kokkali rek innama nahnu mustahzi'un sunu borom ne allahu yastahzi allahu yastahzi bihim ah sunu borom noonu ñu yëjjee ak a saboote noonu la leen sunu borom di yëddee jéjjee waaye daf leen di alag gis nga bàyyi leen nag fii tuxyaanim yaamahuun gis nga ci seen beewu googu ñu nekk ñoo xam dañuy gën di alku kon ñetti melokaan a ngi noonu yoo xam ne ci suratul baqara sunu borom wane amul nit ku génn foofu da nga nekk julit mbaa nga nekk yéefar mbaa nga nekk ci kencakanc ak fu nekk tànk muy naafiq sunu borom mu ni gaa yi nga xam ni ñoom ñoo doon daw ca xare ba sunu borom mu ni qul neel gaa yi lan yanfaakum du leen jariñ alfiraaru daw in farartum bu ngeen doon daw min al mawti ci dee ci faatu awil qatli wala ñu rey la faatu muy dogalum sunu borom awil qatl wala dogalum sunu borom bu am ci loxolum jaar muy rey wa idan kon de su boobaa bu ngeen muccoon sax laa tumattauna du ngeen béewlu ci àddina illa qalilan lu dul nii bu gàtt ndax deemam laa shakka ni dana yegsi almawtu baabun wa kullu nnaasi daaxiluhu dee day buntu la boo xam ni ñépp a cay dugg ku bañ a dee bul judd mu jeex benn saafara rek la dee am mooy bañ a judd mbokk yi dee kenn mënu koo daw qul inna al mawta alladi tafirruuna minhu sunu borom ni dee mi ngeen di daw fa innahu mulaqikum mi ngi dajak yow nga ne kon jarul may daw naa toog mu ne aynama takunu te foo mën a toog nag yudrikkumul mawtu dee fekk la fa nga ne ah mu ne waaw walaw kuntum fi burujin musayyada fu ca asamaan sax fa biddiweew yàqatu boo fa duggoon sax dee fekk la fa gis nga de borom bi subhanahu wa taala mu ni saa xatta ida jaa ahadakum almawtu tawaffathu rusuluna defe naa yéen a ngi fàttaliku sunu bind barki démb waxoon naa leen ne malakul mawti sunu borom dafoo lemal suuf si yombalal ko ba mel nii waaju tiim palaatam nii nga xam ne lu tege ci palaat bi yaa ngi koy seen lu ca lax ak lu ca xonq lu ca weex ak lu ca ñuul yaa ngi koy seen coppati fii coppati fii coppateendoo da lay yomb lool looloo tax faatandoo di ko yomb ci kàttan suñu borom accident am na fii accident am fële fee gaal a fa suux fii avion ca kaw fii nangam xam ngeen avion baa nga ca kaw di naan naaw gaal gaa nga ca géej ga oto baa nga ca tali ba terrain baa nga ca raay ba nit kaa nga ca marché ba fa tàkk ca ca courant ba te yooyu yëpp lii am malakul mawti moo leen di faat loolu nag bi qudratil baari jar la fi ula subhanahu wa taala zul quwatil matin moom moo yombalal malaaka mi loolu nga xamante ni day faat ruux ñëpp ñu war a faatu kon mbokk yi dee kenn mënu koo daw ñi nit kii def kay mooy waajal boppam ba dee du ko bett ba dee du ko bett dee du la bett mooy lan mooy saa buy yegg si day fekk waaj nga ba noppi est-ce que mbokk yi ñun dinañ jékki-jékki ñuy laaj laaj yooyu suñu bopp su ma malaakal mawti fekkoon fii ma toog tey mu yóbbu ma man tey ana ban anam laa nar a dajeeg sama borom laaj bu am solo ngoog mbokk yi boo xam ni aka jara laaj ndax pare nga ndax bari ngay naafila est-ce que bari ngay farata est-ce que lijjanti ñi nga ñi nga jot a tooñ est-ce que sa projet yu bari yii fi mu nekk boo ko fi bàyyee mbaa doo indil say mbokk am njaxas wëlbatiku sonal sa bopp fa nga jëm est-ce que lijjantiku nga doog a dem yooyu laaj la yu am solo yoo xam ne ku ne war na koy laaj boppam tey su ma malakul mawti fekkoon fi ma nekk mu coppati sama ruugi ana ban anam laa nar a dajeeg yàlla tey saa boo yëgee ni bu doon ñëw na tey du baax rek xamal ni fi nga nekk wóorut waaye saa bu sa xel dalee ah mel ni Bilal ibni Rabah nga xam ni dafa xëy ni soxna si na ko lalal lal bi defaral ko néeg bi taalal ko cuuraay day ami gan soxna si jàpp ni ku ne ndeke moom gis na deexem mu ne ko damay am gan gan yu jóge fan mu ne ko ay malaaka damay faatu tey jii xam nga nit doomu aadama su fekkee dafa toll ci xar-xari ndee te bakkan bi rotagul dana xam ne day dee mën ngaa nekk sa sago ba dafa xam ko loolu day am am na koo xam ci métti bi lay nekk di ko xam waaye am na koo xamante nii sukuraat si mi ngi nii di ñëw mu di ko gis dara jotu ko mu xamee day faatu foofa lay xamee tamit ni day texeem du texe nag mu ne man damay dajeeg sama soppe muhammadin muhammadin wa sahba ah muhammad ak ay sahabaam kon sunu borom mu ni qul waxal gaa yi ne leen lan yanfaakum du leen jarit añ alfiraaru daw min al in farartum bu ngeen dawee min al mawti ci dee awil qatli wala ñu rey leen wa idan kon day laa tumattauna du ngeen beewlu fii ci àddina illa qalil du lu néew ndax man lam yamut bi sayfi maata bi gayrihi taaddadat al asbaabu wal mawtu waaxidu waykat ba nee na ku deewul ci jaasi dee ca la ca des sabab yi rayee wuute rek waaye dee gi genn la wax na dëgg de taaddadat al asbaab wal mawtu waaxidu ah man lam yamut bi sayfi maata bi gayrihi ku deewul ci jaasi dee ca la ca des sabab yee wuute waaye dee gi genn la naafiq yi nag ñoom dañoo jàppoon ni bu ñu nekkoon seen biir kër comme ni mu ko waxee suuratu Ali Imran law kuntum indana law kaanu indana ma maatu ma qutilu yéen a ngi da ngeen dem xare moo tax ngeen dee gis nga bu ngeen nekkoon fii du ngeen dee kon borom bi subhanahu wa taala mu ni déedéet su ngeen nekkoon ca barab ya gën a ruqe la barada alladina kutiba alayhim alqatlu ila madajaihim gis nga nit ki bu fekkonte ni yàlla dafa tudd ci moom dee même bu demul xare sunu borom ni dee da koy fekk ca kaw lalam mu dee fa ah moo tax sunu borom mu ni qul wax leen ni leen man da alladi kan ci yéen mooy ki nga xam ni yaasimukum dina leen yiir aar leen ah min allahi ci yàlla in araada bikum su nammoon ci yéen su an lu ñaaw sunu borom su ñammoon ci yéen lu bon kan rek moo mën a fexe ba baare ko ba du yegsi aw araada bikum rahma sunu borom andi ci yéen nam ma andi ci yéen yërmande kan rek moo ko mën a téye ba du yegsi amut moo tax mbokk yi pas-pas bii la jullit war a am ida staanta fastain billah booy sàkku ndimbal sàkk ko ci yàlla booy ñaan ñaanal yàlla booy dimbandikoo dimbandikoo yàlla te nga xam ne àddina bi yépp buñ pare woon pour dimbali la te yàlla àndu ci ndimbal ma du yegsi buñ pare woon pour lor la te sunu borom àndu ci lor ba du yegsi inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum fa zaadahum imaanan lu tax lan yusibana illa ma kataba allahu lana tépp ju dal suñu kaw daa fekk suñu borom a ko dogaloon gis nga lii ci ci mandarga yi gën a mag yi wane wéeru pas-pasu ku gëm yàlla la bokk moo tax sunu borom mu ni man da alladi kan mooy ki nga xam ne yaasimukum moo leen di aar min allahi ci suñu borom in araada bikum suan bu nammee indi safaan gis nga sunu borom saa bu dogalee safaan mu nam ma yegsi amul kenn ku la mën a garde ida jaa al qadaru nag sax moom xamiya al basaru faf saa bu dogalu yàlla yegsee bët bi doon xool bët bi doon xool day selmaxa mënees na ci joxe ay misaal yu bare bare bari yaakaar naa Amérique tey boo ko xoolee ak taaxi kawam yooyee nam meloon seen appareil yi ni mu sophistiqué satellite yeeg ñoom seen ñu mën a yàccaaral di xulle ba ab ku ko soxlaa toj ñëw toj ko te mënuñ ca dara gisuñu ida jaa al qadaru la amiya al basar bu dogal suñu borom yegsee bët bi day silmaxa ak yeneen ak yeneen i misaal yooyu suñu borom saa bu xasee dogal ah dogal suñu borom dara du ko fanq déedéet aw araada bikum rahma wala suñu borom nam ma andi ci sa kaw yërmande ko kenn mënta tee mu yegsi moo tax mbokk yi jullit bi day muslu ci yàlla mu musal ko waaye di ko ñaan li nga xamante ni moom mooy yërmande tamit jugal wala nga jóg fi sunu borom subhanahu wa taala mu ni wala yajiduuna du ñu am mi lagum wala yajiduuna du am lagum ñeel leen min dunillahi wali sunu borom waliyan péete wala nasiran wala ndimbal ay yépp nag jàppal ne mi ngi jëm ci naafiqi na bindab démb bi as lëf ci bindab démb bi waaye bindab tay bi moom daanaka su ma yaboo ni lépp mi ngi jëm ci naafiq yi ak seeni melokaan ak sunu borom subhanahu wa taala te gis nga naafiq nag lim gën a ya bañ a yàq lim bañ gën a bañ mooy alquran wàcc yaxzaru almunafiquuna an tunazzala alayhim suura sunu borom ni naafiq yi lim gën a bañ mooy alquran wàcc ndax alquran bu wàccee tunabbihum bima fi qulubihim day wax la ci biir seen biir xol ya moo tax naafiq yàkkamtu alquran wàcc ndax la wax bu alquran bu wàccee rek liñ doon nëbbu ci biir dënn yi lépp lay feeñal moo tax sunu borom mu ni wala yajiduuna du ñu am lagum ñeel leen min dunillahi walis yàlla waliyan péete wala nasiran wala am ndimbal sunu borom rek mooy péete innahu ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa atasimu billahi wa mawlaakum fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir képp kuy sàkku péete na ko sàkku ci yàlla kuy sàkku ndimbal na ko sàkku ci yàlla kuy sàkku xetalikoo muslu na ko sàkku ci yàlla kuy ñaan na ñaan yàlla kuy dimbandiku na dimbandikoo yàlla ndax yii yàlla rek rek moo ko am keneen kooka defal ku dul suñu borom bokkaale nga ko te kooka kat lan yughni anka min allahi shay'a kooku mënalu la dara ci kanamu yàlla subhanahu wa taala moo tax alaxira dana uduu shurakaakum alladina zaamtum annahum fiikum shuraka uduu alladina zaamtum annahum fi fiikum shuraka woo leen gaa yi ngeen jàppoon ni ñoom am nañ mel ndimbal muñ mën suñu borom gis nga de su ko defee weqantey baat yi am foofa nag nga xam ni kenn ku ci nekk rek da ngay bëgg sa morom sori la nga di ko kalaameeg sa borom waaye day fekk bay wees na mbuus comme ni ko wolof yi waxee sunu borom bu ni qad yaalamu allahu sunu borom yàlla xam na almuawiqiina gaa yi nga xam ni ñooy gàllankoore minkum ci yéen sunu borom nee na qad yaalamu allahu yàlla xam na almuawiqiina minkum gaa yi nga xam ni ñooy gàllankoore gis nga naafiq li wolof yi naan képp ku lakkale balaa am jàmm day gis moroomam lakkale naafiq noonu la mel moom du dem waaye du bàyyi nit ñi dem est-ce que xam ngeen ni boo gisee yonent bi alayhi salaatu wasalaam gaa yi naan inna buyutana awra wa maa bi awra ah kenn ku ci nekk di sàkku ñu ñu yeewi ko yonent bi ne ko yeewi naa la parce que ñooñu ñu garaaw lañ ñu am influence ci mbooloo mi gis nga dañ doon influencé bay influence sax ñu gëm yàlla ñoo xam ne bu ñu amul sens rek ndeysaan yéen a ngi fàttali ko xaswatu tabuk tabuk gaa yi defoon nañ ay influence ndeysaan ci jullit ñi allahu akbar ca la ca la ca la ca la kaab ibni malik tardé woon ak ñettam ña bala leen dal dal leen xatta daqat alayhim al ardu bima raxubat am na ku ca am sens moom dafa gën a doon tardé tardé wu muy aba xaytuma nga xam ne gaa yi seen wax yeeg seen influence yi xam nga loo gëm gëm gëm yàlla loo gëm gëm gëm yàlla moytul ñu mel noonu nga di leen déglu parce que dañuy influencé waate gars yi di wax ba ndeysaan abu xaysama daal di dégg wax ya xelam daj ah yonent bi saa salaam moom li mu bëgg moom kenn xamu ko naaju tàng wii nga xam ni sa waay booy génn fii sax di waaj a dee boo kaala woo sa sa kaala gi day mel ni sër boo teg ab paase feeru paase nga bëgg a génn fi ah loolu wax dëgg yàlla loolu moom yonent bi daa waroon bàyyi ba kër gi seen gis nga genre wax yu mel noonu wallahi mbokk yi mën naa tourné ngëm yàlla yëg leen ko de mën naa tourné ngëm yàlla am na ñoo xam ne kenn du leen déglu parce que wax la yoo xam ni ibi olof yi dañuy wax ne saytaane waxul dëgg waaye yàq nam xel am na ñu bari ñoo xam ne ndeysaan dañ leen di influencé am na góor yu dëgër nag yoo xam ne ñoom caaxaan du leen influence waaye am na ñoo xam ni subhanallah xobi garab lan fu ngelaw naaw dem rek ñu naaw ànd ak moom abaa xëy suma wax jooju nar a def jeexintal ci moom mu daal ni ah man daal dëgg-dëgg naaju daa tàng xaaral ma toog ba ca kanam dem génn ba jullit ñi raw ko dem mu dellu si biir këram fekk ñaari soxnaam nekk ci ron xayma ji defaral ko njar mu sedd guy taajal ko bi mu yëkkatee njar mi allahu akbar mbokk yi gis nga yàlla subhanahu wa taala bu la defalee hidaaya rek defal na la ko su la naree xitali rek xitali na la kenn mënu ci dara bi mu yëkkatee njar mi bay naan xelam dem ci ni man aba xaysuma ma nekk ci sama ron xayma ak sama ñaari soxna di naan saam soow yonent bi nekk ca àll ba ak ay saxaabaam ca naaj wu tàng wa man xanaa damaa xal ko rek fel soow mi mu tuur daal di ngalaab aw fasam rek rëppatal génn fekk gars yi jiitoo nañ ko ay kilomètre muy daw di daw di daw bi jullit ñi séenee ñuy rëppatal benn waaye moo geesu mu ne ah def leen ndànk daf mel ni ab yéefar mi ngi ñuy dab si de xam nga bu ñu séenee kuy pënd pëndal di daw dañuy jàpp ni yéefar bu leen di dab si la gaa yi gestu xool xool kenn mënu koo xàmmee yonent bi alayhi salaatu wa salaam xam nga day am waxyu yàlla da koy waxyu laa shakka ni yonent bi nekkul fee di ko seen di xam ni kii mooy abu xaysum waaye yàlla moo ko xamal saxaaba yi kii naan mbaadu yéefar kii naan mbaadu diw est ce que du ñoom diw ñoo tardé yonent bi ne kun aba xaysama insha allah kooku da aba xaysama lay doon abu xaysama daal di yegsi ndeysaan yonent bi siggi xool ko muuñ daana def loolu nag léeg-léeg dana la jéppi mbaa mu mere la waaye comme moom ay jikkoom dafa rafet ba ñaawantoo ak fayantoo amut ci moom moo tax Kaab ibni Malik ba mu tardé ca Tabuk nee na ma ñëw nuyu yonent bi yonent bi muuñal ma taxut ma muuñ de ndax xam naa ne tabassama alayya tabassama tabassumal mughdib muuñu ko mer allahu akbar dafa rafetoon ay jikko sallallahu alayhi wa sallam ba même bu meree sax rafet jikko gi day feeñ ci mer mi mu ne ba yonent bi muuñee taxut ma kontaan ndax xam naa ne tabassama alayya tabassumal mughdib muuñ ak ku mer la ma muuñ yonent bi muuñ ndeysaan ree sàkkar yàlla bi feeñ sallallahu alayka ya rasulallah mu daal di noppi waxu dara gars yi ñëw ñii naan man dama kii yoon sama kër kii naan nangam ku nekk lay ay lay ku lay rek yonent bi bàyyi la nga dem Kaab ibni Malik yonent bi ni ko lotéree ñëw mu ne dëgg dëgg dëgg lay du ma ci fekk xoolal saxaaba yi niñ dëggoo woon mbokk yi mu ne lay du ma ci fekk de mu ne mënoon na maa fen ma wax li gars yi wax naafiq yi lañ wax naan ñun joxe ay ngant waaye duma ko def mu ni ko dara jàpp ma lu dul topp sama bakkan kese yonent bi ni ko kon demal ba yàlla àtte say mbir allahu akbar ndeysaan suñu borom daal di joxe ndigal nañ leen embargo yonent bi joxe ndigal ni bu kenn waxateeg ñoom moo koy gis nga xissa boobu xissa bu daw yaram la te metti nekkub saxaaba di julli si jàkkay yonent bi koo xool du la xool ku la nuyu pare na ci yow kaab nee na dem naa ba fekk sama benn xarit sama gaayen boo xam ni maak moom nii mu wóor ma ni yaakaaroon naa ni bu ma ñëpp gàddaayoon kookoo ciy des ma fekk ko ci toolu tàndarmaam taxaw ci ñag ba di wax ak moom siggiwul sa xool mu ni ma jonkan jooy xam ne àddina yàqu na ndax jamono bii ki ma gënoon a yaakaar ni mooy wax ak man waxatut ak man ñu toog tuuti soxna sa ko doon toggal nag faf yonent bi ne ko génnal kër gi nga dem sa kër yaay yëf yi gën a métti nag sunu borom yi daqat alayhim al ardu bima raxubat dem nañ ba suufu si yàlla si li muy yaatu yaatu xat na ci ñoom a hunalika butuliya al muminuun mbokk yi sunu borom buy indi nattu day indi nattu de xoolal ku tol ni kaab ak ni mu baaxit ni mu ragalee yàlla ñu embargo ko kenn du ko seet si kenn du ko nuyu kenn du ko dimbali soxnaam sa ko doon toggal ak ko si néew ñu ne ko demal sa kër da nga daa tas mu ne ko dee yonent bi waxuma tasal de ndaw si ne ko yonent bi waxuma tasal dana ma demal toog seen kër rek ba keroog yàlla ay àtte mbiram kaab nee na dem naa bay misère ci dëkk bi nurootuma nit buuru perse yëg loolu daal di bind benn lettre kaab ni ko dégg naa seen yonent bi daf laa embargo ñëwal fi man boo ñëwee ma jox la poste bu gën a rëy bi la yonent bi jox loolu de ci nattu yi la bokk allahu akbar ndeke fa nga gën a sonnee fa la nattu yey gën a yegsi nag wala yaalaman allahu alladina sadaqu wala yaalaman alkadibin gis nga foofu bu doon ko bàyyi ba mel ni ñun ndeysaan da ngay dem ndax buur nga ñëw mu dugal la biir pale kenn du ko yemaleeg naan da ngay toog ci ron keppaaru yonent bi saa salaam waaw ci kaw ko xamul lay doon nag kaab nee na bi ma léete liiree lettre dama koo xotti ma ne seytaane ñëwati na sama biir kër allahu akbar nee dama koo xotti sànni mu toog di muñ di muñ di muñ ba yàlla wàcce aaya ndeysaan di ko setal ñan la yoon doon fen nag sunu borom daal di wax ay aaya ne ñii ci nafiqi lañ bokk dañ doon fen keroog bi aaya ji wàccee ndeysaan ummu salama soxna yonente bi aleyhi salatu wasalaam mu daal di ñaan yonent bi ni ko mii mbégte de dama lay ñaan nga may ma ko ngir ma bégalee ko ko loolu loolu sunna la mooy jullit day fexe di dugal information bu neex ci xolu jullitam mbokkum jullitam maanaam soo yëgee information bu neex boo xam ni dana jig bégal sa mbokkum jullit da ngay préféré nga wax ko ko yow ndax nga dugal mbégte ci xolam ndax loolu ci tiyaaba la bokk umu salama nee na occasion bi ma ñaan ko yonent bi pour wax ko kaab ndeysaan am na benn xaritu kaab moo tax gis nga gis nga mbokk yi ngëm yàlla saxaaba yi kéemtaanu suñu borom la woon am na benn xaritu kaab mooy ki ma junj sànq nga xam ni dafa jege woon kaab jege goo xam ni wér na ko ni bëgg koo embargo waaye yonent bi joxe ndigal allahu akbar gis nga bi mu yëgee ni aaya ji wàcc na xam nga nu mu def dafa daw aw xel génn jàkka ji daw ba ca kaab daal di koy yëkkati tungam ko ni ko abshir faqad anzala allahu alayka quranan yutla bégal yàlla wàcce na ci yow alquran ju ñuy jàng ndax loolu ñoom kat ndekete kat du yow laa mere du sa jëmm ji waaye sa jëf ju bon ji nga def laa mere kon loolu nañ ciy bàyyi xel ñun nag dañ koy jaawale ndax nit bu defee lu bon au lieu que nga mere ko nga mere jëf ju bon ji nga mere ko moom moo tax bis bu tuuboon deltu gannaaw een day des ci sa xol ba tey een day des de masala mu am solo goog mbokk yi nit bu defee njuumte bul ko bañ moom nit ki waaye bañal njuumte ba lu tax mooy bis bu tuubee da ngay delloot fa nga nekkoon waaye bis boo ko bañee ndax njuumte bi bu delloo gannaaw een bi day des sunu borom kon di wane ne naafiq yi kat ñoom lii bokk na ci seeni melokaan sunu borom mu ni yàlla xam ne almuawiqiina minkum gaa yi gàllankooraate ci yéen wal qaa'ilina ak ñi wax li ixwaanihim seen mbokk yi halumma ilayna kaay leen fii maanaam jóge leen foofu ngeen nekk ngeen dugg ci biir kër yi di décourager loolu nit ñi di leen wàññi sunu borom mu ni wala yatuuna al ba'sa ñoom de bu metti di yegsee du ñu ñëw illa qalilan lu dul lu néew te ñàkk pexey tax bu jafe-jafe amee ak coono naafiq yi kenn ku ci nekk saroon bàjj ngay boxañu daal di fay tëdd boqatu waaye bu fekkee bànneex am na na nga gis kenn ku ci nekk di commencé génn sunu borom mu ni ashahatan alaykum naafiq yi bokk na ci seen melokaan ñoom dañoo nay lool ci yoon ci yéen naafiq yéene dañ leen di xoolee kanamu yéene yiw waaye sunu borom mu ni yéenewul leen yiw de ashahatan dañoo nay alaykum ci yéen yéenewul leen yiw yéenewul leen lu baax yéenewul leen ngeen gañe ci xare doonte ñu ngi guddal seeni sikkim di mel ay melokaan di soccoo ka nuru ab saxaaba bi yonente bi alayhi salaam fekk ña nga làq leneen ci ginnaaw sunu baramu ni fa ida jaa saa bu yegsee alxawfu tiitaange ji tiitaange ji mooy jan mooy xare ak yu demee ni ñoom sunu baramu ni raaytahu nga gis leen yanzuruuna ilayka ñi ngi lay xool ba ti yërëmtalu ba ti yërëmtalu xam yi que da nga koy xool muy xapp-xappal nga xam ne yàkkamtu lu dul bu dee ko gëmmentu mu ne nga ne ko demal tëri ah gis nga ko gëmmentu am na bët yi mu lay xool day bëgg nga ne ko demal tëri waa joo xam ne sawaru la tamit da lay xool bëti toogal bëti nga wax ko toogal moo tax taduru ayunuhum seen bët yaa ngi werang werangi ko ah yanzuruna ilayka ñi ngi lay xool taduru ayunuhum seen bët yi werangi ko ñuy xapp-xappal ak yërëm tëlu kalladi yughsha alayhi comme ni nga xam dañ ko ku ñu njatt min al mawti di ko waaj a rey ko xam ne dañ koo njatt di ko waaj a rey nga xool bët yi buqeeku muy yërëmtalu di xool bët yërëm leen ma sunu borom ni bët yooyu la ñuy buqeeku di ko xool di bëgg yéen sa sanam jox leen ndigal ñu dem toogi sunu borom ni fa ida dahaba al xawfu saabu tiit gi demee xare bi jeex ah mu ni salaquukum ñu joxar bi leen nag bi alsinatin xidaadin ci làmmeñ yu ñaw loolu mooy lan yent yàlla bi alayhi salatu wasalaam mu firee ko mu ni saa boo xamante ni gars yi fe xare ñëw na da ngay gis ku nekk di jéem a làmbaatu aw lay di yërëmtalu di sàkku yonente bi jox ko ndigal mu dem tooge waaye saa bu bànneex ak seen ak salaquukum ñu da joxar bi leen bi alsinatin xidaat làmmi ñu ñaw nga gis ñu naan keroog badar kay xamoon naa ni kay dinañ gañe xëy ba ma jàppee bay diw fekk dara la defut dara neexu làmmiñ rek jàpp làmmiñ bi daas koo daas ñaari wet yëpp ba mu ñaw loolu mooy ah alsinatin xidaat làmmiñ wu ñaw xam nga xaad sikkiinun xaad mooy jaasi ju ñaw alsinatin xidaat mooy làmmiñ woo xam ne borom da koy daas ba mu ñaw ay man ni ma kontaanee keroog ba dara badar de bi ñu defee ni ñu def jul su ko defee julit bu ko dégg jàpp ni moom fekk kontaanut dara dara wala nga dégg mu naan ah tey de moom màng bi moom bari na lool wax dëgg yàlla lii kat moom jar na ko ndax jot nañoo sonn ci yéefar yi fekk déedéet da doon làqoon sax moom xerewul sax faf gis nga moo tax abdullah ibni abbas mu ni qataada nee na ah amma inda alganima fa ashaxu qawmin wa aswa'u muqaasama saabu màng bi yegsee ñu bon ay jikko yañ te yërëmtaloo ko bu xëy bët pour bëgg ñu sédd leen nan aatuna aatuna jox leen ñu jox leen ñu qad shahidna maakum bi ngeen dem ñoo ngi yéen a àndoon waaye amma inda albasi fa ajbanu qawmin wa axdalahu lilxaq nee na saabu njàqare di kii tiitaange nag ay tappet la ñuy doon yoo xam ne ca gannaaw la ñuy làqatu ngir bañ ku leen woo wa rasul baram mu ni ah fa ida dahaba alxawfu saa boo xamante ni tiitaange ji dem na salaquukum ñu joxar bi leen nag bi alsinatin xidaad ci ay làmmeñ yu ñaw ashihatan ala al xayr ñu nay lañ ci def tiyaaba sa bu saraxa ñëwee sawaruñ bu aj màkka ñëwee sawaruñ bu jihaad ñëwee sawaruñ waaye saa bu séddale màng yegsee rek nga gis gars yi commencé di feeñ nag moo tax naafeq yi xam ngeen ni yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla daf ko xamaloon naafeq yi nekk ci biir madina nit ñi leen sikk sàkk diw naafeq la ak diw naafeq la waaye yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla xamaloon na ko naafeq yi bokk na ci seen i mandarga bu ñu waxee fen buñ diggee duñ ko def faruñ fii faruñ fee bu jëmee ci dañuy tayal lanuy wax ak lan fas bokkut gis nga de mboolem melokaan yu sibu yi nga xam ni borom bi daf koo dajale ci alquran ay melokaan la yoo xam ni ku ne ci ñun nag mbokk yi war na koo jàngat ndax yii mucc naa ci alhamdulilah mucc nga ci kéefër waaye bul fàtte ne jullit nag moom ne nifaaq ci seen biir lay nekk ci jullit ñi nifaaq amul ci kéefër kéefër moom kéefër la jeex na laa sa nabaadal kufri waaye nag ci biir jullit ñi ngay fekk ay munaafiquun damay wax mbokk yi ma ni madina ak ni mu sellee ak ni mu baaxee jàkka yonent bi ngay gis yonent bi subaak ngoon ba pare naafeq yi bari lool mbokk yi tey yaakaaru ni buñ doon sélectionné naafeq yi duñ jàpp lu bare bare bare bari lu bari sax ndax bu dee jamono yonent bi jamono ju sell jooju nga mën a am ay téeméeri téeméeri naafeq yoo xam ne bis bu nañu yeewoo ak yonent bi ci biir Madina tey jii yaakaaroon ni boo doon sélectionné kon di nga am ay naafeq yu baree bare oxon kay kenn ku ci nekk nag day war a tuumaal boppam baaraamu tuuma tey ñaan yàlla musal ko ci li nga xamante ni mooy nifaaq suñu borom mu ni asihatan dañoo nay alal xayri ci yiw ulaika gaa yi lam yuminu gëmuñ gëmuñ yàlla fa ahbata allahu yàlla yàq na amalakum seen jëf yi bokk yi nifaaq day yàq ay jaamu yàlla comme ni nga xamante ni noonu la bokkaale di mabbee jaamu yàlla comme ni kéefar di mabbee say mbaax mbaax sunu borom ni fa ahbata allahu yàlla mabb na amalakum seen jëf yi wa kaana nekk na dalika loolu ala allahi fa yàlla yasiran di lu yomb mooy sunu borom day màbb seen i jëf moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ni nifaaq day màbb say jaamu yàlla ndeysaan sa julli yi sa qiyaam yi sa naafila yi sa woor yi nga pare ñàkk ko nii ci zéro rek ngir benn jikko bii di tudd jikkoom naafiq borom bi subhanahu wa taala mu ni yaxsabuuna ñi ngi yaakaar ni al ahzaaba ba léegi ñu ngi ci naafiq yi yaxsabuuna dañuy yaakaar al ahzaaba mbooloo yi lam yazhabu demuñu maanaam ñoom bi ngelaw li calmeer bi wullee ba yàqate seen bagage yi ba noppi naafiq yi ñoom dem mbooloo yi dem te gañewuñu yonent bi neexu leen déedéet ñoom dañoo bëggoon mbooloo yi gañe yonent bi alayhi salatu wasalaam moo tax mu ne yaxsabuuna ñi ngi yaakaar ni al ahzaaba mbooloo yi lam yazhabu demuñu dañoo yaakaar ne xëy na dañoo am fu ñu làqatu rek maanaam ñu ngi am espoir di yaakaar ni léegi tey gars yi yegg si waat song su yonent bi te loolu da leen di neex ñoom te buñ toogee ci kanamu yonent bi alayhi salatu wasalaam nag nga gis ñuy sëgg di yaru yaru loog di jub jubloog baax baax lu fekk déedéet information bu yendu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fanaani ca gaaya ida laqu alladina amanu qalu amanna suñ dajee ñi gëm yàlla ñun ci yéen lañ bokk wa ida xalaw ila cheytan dene seen seen cheytaane ya qaalu inna maakum ñu ni ci yéen lan far kon loolu ci melokaan yi naafiq nifaaq yi la bokk borom bi subhanahu wa taala mu ne yaxsabuuna ñi ngi yaakaar ni al ahzaaba mbooloo yi lam yadhabu demuñu wa in yati al ahzaabu te bu mbooloo yi yegg si woon sax dellu si waat ah yawaddu ñi ngi bébét law annahum ñoom bu ñu nekkoon baaduuna di ay kaw kaw ah di sori ah fil aarabi ca kaw ga maanaam génn madina du leen fekk bi maana ñoom bu jullit ñi dellu si bu yéefa yi dellu si waatoon ñoom ñoo ngi mbébét naan aka neexoon ñun sax bu ñuy fitnaal yonente bi duñu fekk baaduna fil aarab ñu dem nekk ay kaw-kaw nga baadiya mooy kaw ga aarab mooy nit ña fa dëkk baadiya mooy kaw ga aarab ya mooy nit ña fa dëkk moo tax mu ne law annakum baaduna fil aarab kaw ga nag ak taax yi comme ni ma koy faral di waxee ci duruus yi weesu am nañ ay wuute laa shakka ni kaw ga am na ay ngëneel yoo xam ne taax du ko ci dab mukk mukk mukk mukk mukk mukk ci sàmm kóllëre am bañum rus am jom am looy jom ah ah gis nga ah doyloo li nga am yéene sa mbokkum julit ak bañ a siis nag bañ a siis àll ba boo fa nekkee ndeysaan dañuy wootante rek dañuy wootante rek ndeysaan ko añul kër mu mer waaye mu dee fii ci taax yi nit ñi dañuy bañ sax nga seet si leen waxtu lekk gis nga de yooyu yëpp ay moyisat la yoo xam ndeysaan àll ba ëppalee na ko fii donte nag fii boo dikkee ci wàllu leeru diineeg yeneen ak yeneen mën na ëppee fii waaye sàmm kóllëre am ngor am dignité am looy jomm ak looy bëgg ak looy bañ loolu foofu la ëppee moo tax yë- sunu borom mu ni ñu ngi bëgg a nekk baaduna fil arab yasaluuna ñuy laajte ana ambaikum ci seeni xabaar bi maanaam li mu bëgg a wax fii mooy ñoom suñu sañoon mbooloo yi dañeen dellu si waat song su yonente bi alayhi salatu wasalaam waaye gis na bu ñu ko songu see ñoom du leen fekk ñoom ñoom na fekk ñu isolé wu génn dëkk bi bu ko defee léeg-léeg ngi ne waaw yonente bi lu mu mujjee gaayam ya waay te bala ñoo am leneen neex information bi ñuy dégg mooy mbooloo yéefar ya gañe nañ yonente bi alayhi salatu moo tax mbokk yi naafiq lu garaaw la naafiq yi dem nañ ba tabax jàkka joo xam ni piégé yonente bi lañ ci jublu sallallahu alayhi wa sallam ah muy masjidu dirar sunu borom naan la masjidun ussisa ala taqwa min awali yawmin axaqu an taquma fiihi fiihi rijalun yuhibbuna an yatataharu beneen safaan ba mooy gaa yi nga xam ni ah dañoo tabax seen jàkka ah sunu borom mu ni jubluwaay ba nekkul lu dul jaxase wa tafriqan bayna almuminin wa irshadan liman xaaraba allaha wa rasulah maanaam jàkka joo xam ne bañ koy tabax ak ndëgg sërëx li wolof yi naan ndëgg sërëx lañ laloon yonent bi alayhi salatu salaam sunu borom ni laa taqum fiihi abada bu fa teg tànk mukk laa taqum fiihi abadan bu fa teg tànk moo tax gis nga yonent bi saa salaam dañ koy wax yu nag am na mbir yoo xam ne bu alxuraan du loon ñëw du baax dañ koy piégé te buñ ko piégé man nañ koo jàpp waaye nag allahu yaasimuhu min annaas yàlla moo koy aar ci nit ñi moo tax pexe yu bare bare day rëcc pexe yi ko doon rey seeg pexe yi nas ngir ngir ngir ngir yàqal koog ngir yàq daawa beeg yépp sunu borom day daal di wax ci ay aaya mu leeral ko sunu borom mu ni walaw kaanu fiikum donte dañoo nekk ci yéen maa qaatalu du ñu xeex illa qalilan lu dul lu néew a néew a néew maanaam ñoom bu ñu nekkoon ci dëkk bi sax day bu xeex jone da ngay gis ñiy génn ñu néew la ñuy doon waxoon naa leen ko nee naafeqi ñoom dañ daan génn bañ a génn wa illa bu ñu génne dañuy influencer mbooloo mi di leen yàqal ngir ñu bañ a topp yonente bi alayhi salatu wasalaam sunu borom mu ni laqad kaana nekk na lakum ñeel leen uswatun xasana wala fi rasulillahi ci yonent yàlla bi alayhi salatu wasalaam uswatun modèle muy royukaay toppandoorukaay uswatun xasana royukaay bu rafet liman kaana ñeel képp koo xam ni dafa nekk yarju llaha di yaakaar yàlla wal yawma al axira ak bisab alaxira wa dakara allaha muy tudd yàlla kathiran lu bari mbokk yi laaya ji laaya ju ju am solo la laaya joo xam ni kenn ku nekk ci jaami yàlla yi ak mbooloo moo mën a bokk ci kaw suuf laaya ji jël ko teg ko nasba ay nayk aaya ji ak jaca suratul mumtaxana hiya misanul xaq mooy peesekaayu dëgg bi wuute gi bari na lool toppaate gi bari lool ku nekk di yaakaar ni fam ko kal fala maa ne ci dëgg ñoom diw nekkuñ ci dëgg sama waajee waaji ku ko topp toppoo waaja gis ngeen ko de façon yi bari na lool ku bokkul ci mbooloo mi bokkoo ci dara ku tëbbuwul fii tëbbuwoo ci dara ah yooyu yëpp am na lu ko gën a am solo xam nga li ko gën a am solo mooy ñu dellu ci li ñëpp bokk li ñëpp bokk bokk yi mooy alquran nu yëg ni lii tanzilum min rabbil alamina tanzilum min hakimin hamid sunu borom subhanahu wa taala alquran ji la yónni woon yonent bi mu jottali ñu ko bii téere la ñu yàllay laaj alaxira mbokk yi comme moom la ñuy laaj nag nañ ko def peesekaay bi benn modèle la la yàlla wutloo mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam laqad kaana lakum nekk na di leen ñeel fi rasulillahi ci yent yàlla bi uswatun xasana royukaay bu rafet yent bi lañ la royloo de alayhi salaatu wasalaam amul kuñ lay laaj nag boo duggee bàmmeel ku dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam est ce que ni ngay soloo noonu la yonent bi doon soloo kiñ la royloo uswa sa royukaay modèle nga bëgg repère nga bëgg référence nga bëgg yonent bi la alayhi salaatu wasalaam nee nga gisatoo ko ay njàngaleem leer na fi naññ ndax yar na ay taalibe jàngal leen ba ñu mokkal ñooñu ñu jàngal ñeneen ba ñu mokkal loolaa tax mbir mi yegsi ci ñun li man kaana yarju llaha wal yawm al axir est ce que booy takk soxna ni yonent bi doon takkee soxna ngay takkee soxna est ce que booy naan ni yonent bi doon naanee ngay naanee alayhi salaatu wasalaam yonent bi day mbindeef la woon boo xam ne sunu borom daf koo defaloon ci ay kéemtaan lu bay góor la woon ngoo xam ni njoolul ca kaw ba ni sëll waaye gàttut woon lool ba ni dégg déedéet bal kaana bayna dalik ni ko yàlla bindee woon te bokk ci yiñ koy roy moom day da daan taamu di sol lu weex li ëpp ci ay yéreem donte nag du comme ni ko ñenn ñi foogee chaque jour lu weex laay sol déedéet daf koo xemem loo waate rek ku ko mën di sol baax na ku am layee nit baax na yonent bi day bu musaana sol yére kenn musu koo gis sallallahu alayhi wa sallam ku ko wax wax na lu la ca ginnaaw dëgg mu sol yéreem te seenoo dojaram musul am sallallahu alayka ya rasulallah déedéet idaaru rajuli ila ansaafi saaqayhi tubay góor yent yàlla ween ci digg yeel ba lay yem nga ne ah waaw est-ce que yombal tuuti amu ci mu ne ahankay boo bëggee mën naa rës tuuti est ce que yombal amu ci ahankay bu bëggee mën naa resaat tuuti est ce que yombal amu ci fa yombal mën a yem nag mu ni mooy mu tiim dojar bi maa asfalal kaabi fi naar yent yàlla bi ne lu féetes dojar suuf rek suñu borom lakk ko ci safara yonent bi alayhi salaatu wasalaam sikkim bi dafa sëqoon lool allahu akbar daaw ko wadde déedéet déedéet sallallahu alayhi wa sallam déedéet daawul wat sikkimam bal sax nag waxuma la lii waaye yii sax da ko doon bàyyi saxaaba yi nee nañ bu yent yàlla bi ne assalaamu aleykum sëlmal balaa ñoo gis xar kanam gi weexaayu sikkim bi ci faas yi la ñuy njëkk a gis dafa tere julit wat sikkimam yent yàlla bi nee na xaalifuukum wuute leen ak yahud yi ndax ñoom dañuy bàyyi seen mostas di wat seen sikkim yent yàlla mu ni wat leen seen mostas bàyyi seen sikkim te foofu borom xam-xami usul yi dañuy wax ni li lay wan ndigle bi foor na mooy dafa boole ñaar dañu la wuuteel ak yahud yi ba pare ni la defal lii te bi muy wax jàngale yar sikkim dafa wax ju am solo ku ne xam na ne lañ set fu mu jaar jàmm amu fa moo tax dañuy iaful liha jàmmal leen sikkim may leen ko jàmm allahu akbar waatiya jawaami al kalim baat yu rapp te jub te leer la ko yàlla jox iaful liha jàmmal leen sikkim yi waay allahu akbar yar leen ko irqul liha iaful liha yooyu yëpp ay riwaayaat la yoo xam ne bu nekk wér na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawul jox loxo jigéen maa massat yadu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam yadam ri'in yadam ra'atin qattu yonent bi daawul jox loxo jigéen kii góor la am jigéen ñu ni ko jigéen la mu ni inni la usaafihu nisa man du ma jox loxo jigéen déedéet yonent bi day tere góoru jàmbur wala jigéenu jàmbur kenn ku ci nekk di wéet ak morom ma fu maxaram nekkut ndax yow yaa ngi toppandoo yonent bi ca nam doon ngéntee ca nam doon ceetalee yonent bi de bu musaana am doom ca bis ba bu ko neexee mu tudd ko loolu sunna la am na doomu Ibrahim xëy ni saxaaba yi biig soxna si am na yeeweeku na am na góor tuddee naa ko maam Ibrahim jaabir ibni abdillah nee na am naa doom ma ñëw yonent bi tuddal ma ko ah abdullah ibni zubayr am na doom ah zubayr am na doom yonent bi tuddal ko ko abu talha am na doom yonent bi tudd te yii yëpp may wax ci bis bi la ko tudd sax na tamit bàyyi ba bis bi dellu si nga tudd wat xale bi peese kawar gi lu tolloog moom ci or wala xaalis saroxe ko suul kawar ga jeex na la ca des nag lépp aada lay doon dañuy xool aada ja ndax diine bañ na ko wala déet bu dee aada la joo xam ne amul lu ko rendi gàtt jazakumullahu xayran rendi gàtt bu dee góor mu rendil ko ñaar bu dee jigéen mu rendil ko benn su fekkee am na ko su ca paree pare na ca la ca des ay aadaat la nag bu ñu ëppal ndax aadaat yi bu leen fàtte ni yonent bi fekk na fi aada yu bari ba mu dikkee da ko fee bàyyi kon dañuy xool selon aada bi lan la ndax amut lu ciy jañanteeg lislaam mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokkoon na ci aw doxalinam sallallahu alayhi wa sallam mooy daawul guddee tëdd déedéet lu dul lu mënta ñàkk day teel a tëdd ngir waajal jóg yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokkoon na ci aw doxalinam daawul yëkkati ay tiitaange di ko jëmale ci mbokkum jullitam yonent yàlla beneen ne yàlla na yàlla rëbb koo xam day yëkkati tiitaange di ko jëmale ci mbokkum jullitam rawatina comme ñun yenn yi ñuy kafe kenn du ko kafe nit génn nga denc ay dàllam ah nan dama doon kafe ak moom déedéet kenn du kafe moom loolu moo tax gis nga mbokk yi téere bii di axbar yi téere bi mun ko jàng wallahi nan ko jàng téere bu am solo ngoo ak ñu koo xeeb ak ñu koo xeeb te téere bu kéntaane la mboolem jikkoy safaan yu bon yi gën a fës borom axdar yi leeral na ko nee nga pas-pas ngay tàmbalee mu ne awalu maa yajibu alal mukallafi tasxiixu imaan yi foofa la aqiday tàmbalee gëdd ab julit beccagal julit toroxal julit tiital ko gàccaal ko yooyu yëpp da koy tere ñi ngi koy jàng ci daara yi waaye damaa yaakaar dañ kaa déggut nag ndax bu jëf dee am nay rey borom xam-xam yi nay nay nay topp borom xam-xam yi waaye bu jëf dee am wa yaqtadi mu ni bil muttabiina li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam déggal de na nga toppandoo ñi nga xam ni ñoo doon te gis ngeen axdar yi téere boobu ñuy xeeb ah ak li muy am am solo borom bi mu koy taalif fukki at ak juróom-ñaar la ko taalifee da doon essayé allahu akbar imam axdar yi al axdar yi bi muy am fukki at ak juróom-ñaar la doon essayé di essayé ndax mën naa bind téeréem de ca la taalifee axdar yi te xoolal téere bu ni mu amee solo walakum fi rasulillahi uswatun xasana am ngeen roy waay wu rafet ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mbokk yi kuy topp yonente bi lay toppandoo lépp lu nit mën ci indi te da ngay xool ndax loolu yonente bi moo ko jàngale alayhi salatu wasalaam wala déet ak ku ko mën ci indi nag ak luñ ko maquillage maquillage baaxul su fekkee yonente bi jàngale wu ko yonente yàlla bi nee na alayhi salatu wasalaam man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad mbokk yonent bi day tere déglu musique yonent bi day tere wax waxi mboosoor yonent bi day tere lekk riba bokk na ci yim doon tere day tere jàkkaarloog jigéenu jaambur fixé ko di ko xool di banneexu ci moom comme ni muy teree wéet ak moom comme ni muy tukki a tere tukki ànd ak moom sans mahram comme ni muy teree jox ko loxo yonent bi day sunnaam mooy saa bu daan tëdd day jàpp julli ñaar rakk def ay askaaram jàng ixlaas falaq ak naas raay ko ci yaramam tëddee loxo nday jooram ba toqi doog a jàll ci geneen wet ka noonu la yet doon dundee alayhi salatu wasalaam yonent bi daawul ŋàññi ñam de suñ ko mësaan a taajal su bëggee day lekk su bëggul ubaat ko ubbu jekk su daan lekk da daan sukk day toog sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku amoonub yar la nag ci jëflanteeg doomu aadama yi bari kersa lool te mbokk yii ci yiñ war a roy yonent bi la bokk sallallahu alayhi wa sallam ak lu waay ñàkk-ñàkk kersa wala mu ñàkk yar boo ñëwee ci yonent bi da ngay rus sallallahu alayhi wa sallam ndax jëflante ga benn waay mas na koo lebal ñëw di xool ndax yonent bi alayhi salaam li ñu doon wax ci moom ci ay jikko yu rafet boobu moom xëy na da doon testé rek nag moom ndax yéefari léeg-léeg am na ñoo xam buñ bëggee tuub comme ni Salman defoon danañ am test yu ñuy def mu bàyyi ba benn bis mu bett yonent bi sallam muy dox gannaaw mu dikk poñee ko ca gannaaw mbub ma yéen waa kër Abdul Muttalib yéen du ngeen ay faykati bor yéen nii ngeen di def rek di lebi dem le du ngeen fay kenn wax bay xolam sedd Omar ibn Khattab fàqee ci làng gi rek nar koo def lu bon yonent bi téye ko bii naafiq te nga bàyyi moom yóbbu ko mu fanaane àllaaxira yonent bi ni ko déedéet da nga koy wax ni ko buy fayee kooti bor na rafetal nu muy fayee koo bor te ma it nag nga wax ma boo lebatee na nga gaaw fay allahu akbar sallallahu alayka ya rasulallah sallallahu alayka ya rasulallah dafay yar woon yaru bari kersa ba nga xam ni bari waa na ñun yoo xam ne tey bu la ko sa sa soxna defee tey du ndogoo sa kër kër baayam lay ndogoo ji xam nga ni yow lu toll ni ab ab ab salatier nga teg ko muy veer ñu tegal la ci yakkal la ci ah sa soxna ñëw fiiraa nga jàpp ko tax mu ni ko till mu ni këlëb ni tasar ay góor guñ ko defoon tey kon de koor gi du mottalikoo ci kër gi waaye yéen sa salaam daal di muuñ ndeysaan mooy li ma waxoon sànq tabassubal muxdib léeg-léeg mu mer nag ndeysaan waaye muuñ la koy fajee daal di dajale palaat bi tonni ñam wi jox saxaaba yi ni kulu gaarat ummukum lekk leen seen yaaya fiir rek waaye garaawut gan ñi lekk ba pare daal di dem nag gis nga jigéen boo ko yoree da nga koy tamal da nga koy tamal mbir yoo xam ne bu ko ñàkkee rek moo tax olof yi dañ koy léeb jigéen yàqal doom yaral donte rek ànduma ci wax jooju déedéet waaye waxin la rek am na mafhum mafhum bi mooy soxna si na nga ko tamal mbir yoo xam ne gis nga bis bu fi jógee onk ya muy onk mooy cey sama borom kër ba sama borom kër ba ndax da nga ko tamal loo xam ne du ko amati fenn ci kaw suuf du fa bëgg a jóge moo tax Aïcha daal di ñëw commencé romb ndeyjoor romb càmmoñ yonent bi soonu rek ni këj këjaaral faale wu ko xam nga jigéen boo ko tamalee kaf ak i nooyeeg joxeeg yi demee nga xëy téye ko rek addinaam tukki mu dikk ni yonent bi waaw da ngaa mer mu ne ko mer man kay meru waaw lu xew magum jëm mu doy ni ñun di lekk son lekk nga dikk dafa ngay loolu ab yar la Aïcha xam ne def na xay mu daal dem indi beneen bool yakkaat ca ñam di ko fay ko xoolal mu simple am na yoo xam ne nit ki mën na koo faj ci biir këram ba noppi te coow du jib kenn kenn ci ñun bu doon julli guddi sa soxna di làmb sa bopp ngir nan damaa ragal da ngaa génn dem ca sa beneen soxna booy xëy di ko fase xool lu te loolu du dara du dara yonent yàlla bi Aïcha ne làmb naa ko ci lal bi làmb làmb làmb dajuma ko ma ne xii mbaa du moom daa jug dem fanaane ci benn di néegi soxnaam ma jug di làmbatu ndeysaan xoolal jigéen nee na may làmbatu ba làmb tànk yi mi ngi ko samp su jóot di julli ma dégg ku mu naan allahuma inni aaudu bi ridaaka min saxatik wa bi muafatika min uqubatik ndeysaan xanaa loolu wax dëgg yàlla war na laa doy mu def nii ñëw ba ca bopp ba ruur loxo bi ci biir kawar gi ndax tooy naam déen ndax bu demee ci beneen soxnaam bu paree mu ñëw mu sangu subhanallah yonent bi toog na bëgg xaaji guddi jibril ñëw ci bunt bi fëgg yonent bi ne ko yegsil mu ne ko déet Aysa ngi ci biir te daa solowut allahu akbar Aysa ngi ci biir te solowut génnal yow yonent bi rocceeku ndànk génn bi mu génnee mu ne ko sama borom yàlla moo ma yabal ci yow nee na nga dem baqiya ca armeelu saxaaba ya nga ñaanal leen trois heures du matin allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam woowu abaa muwahiba ne ko kay gunge ma yonent bi génn Aïcha làmb làmb daju ko muy demati na allahu akbar mu ni demati na mu jóg di ko làmbatu làmb làmb ci déeg bi daju ko mu jóg jël làmp di nit tànk yi mu nit tànk yi seen ni ma nga jëm ci àll ba mus muuru topp subhanallah yii ku ñu ko defoon ci ñun mbokk yi sa kër sa kër bu xëyee tas yii boo gisee ñu defee ni tele mooy lii la ñu yàlla royloo lii la ñu war roy ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy topp yonent bi di ko topp di ko topp di ko topp di ko topp ba seen ko nag mu dugg ci armel yi mu xam ni kii nag fi mu jëm bokkut ak fa ma doon foofu waaye taxul ba léegi mu bàyyi de mu làqatu ci pegg garab yi rek bi mu séenee muy wàññeeku nag mu xam ni bu gaawut yonent bi fekk na ko fi tey Aïcha xam ngeen ni dafa xawoon a am yaram ci mu jëntal dundam Aïcha ne nag ma xaw a baral jéego yi ñukki ñukki gaaw ne ne bi mu ñukki ñukkee nekk yonent bi séen na ko ni cal bu doon jógee fay nekk nag waaye lu fi si kii kan la yooyu yëpp jëlu ko yonent bi ni teg bi mu ñëwee xam nga nu mu def dafa ñëw jël loxo bi waaye ku tiit ni muy def xam nga fii la ñuy dambee tiitukaay ak boo dawee yonent bi jël loxo bi ni ko tëll fii ci dënn bi daal di làmb ni ko sa tépp-tépp ji foo demoon mu commencé di nakk-nakkal di làkk yi daa daa yii kon mbokk yi noonu la yonent bi dundee alayhi salaatu wasalaam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon na ci aw doxalinam mooy oyof lool tey jii kenn ci ñun sama kalaas gi ku ci xëy si soxna ni la dag jab ab dàll carax ni la dabb daaxeel ma ko xam ngeen dabb daaxee dàll wu yàqu nga defar ko dabb daaxee ko kenn ci ñun la sa soxna ñi ma wula jox sa daal aw daal naa la dabb daaxeel ma ko waaye da ngay fonto maay sa morom te yonente bi daan xëy sallallahu alayhi wa sallam ni ku am yére yàqu ñëwal ma ñawal la ku am dàll nga ñëw ma defaral la sallallahu alayhi wa sallam pëlu yooyu jikko yu rafet kon yii ay melokaan la yoo xam ni daanaka lu tuuti la moo tax sunu borom ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana wala ala waqtul azan koy laaya bi ci biir aaya ñaar fukkeel suratul ahzab sunu borom ñu laqad kaana lakum nekk na di leen ñeel fii rasulillahi ci yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam uswatun xasana royukaay bu rafet loolu liñ ciy déggee mooy mbokk yi sunu lépp yonent bi lañ koy royee xam nga bokk na ci li la koy wan mooy am na yu nuy nettali li yonent bi yoo xam ne kun ko waxal sa baay nga futtee ko xeex te da nga koy waxal yonent bi mu rafet lool sallallahu alayhi wa sallam sa baay daa àndoon ak diw dem ba ca wana ba ca ca àll ba mu aajoo dem ci wana bi ñu jox ko sa tala gi loolu koo ko wax mu xeex wallahi koo ko wax daanaka bu amee ful la mu xeex te moo ne yonent bi da nga koy waxal mu rafet lool ci moom parce que léppam la ñu war a roy benn borom xam-xam dafay tontul ñiy wax soxna yonent bi yu bari mu ni bokk na ci xekk may soxna yonent bi li tax yàlla yoonalal ko ko mooy dafa am mbiri biir néeg yoo xam ne umma bi duñ ko fekkee ndax moom doo ngay fanaan kon faw mu am ay soxna yu bari ndax kenn mënta ba peeg lépp ba di ko nettali ndax day fàtte kon faw mu am lu umu salamay nettali lu maymunay nettali lu sawday nettali lu umu xabiba nettali ak soxna yi mu amoon yépp comme ni ma ko limee démb moo tax lépp loo gis rek ci yu mel nii am nay xekma yu ca am mbokk yi roy yonent sa salam ci lépp ci sa dund gi yépp ba sa bisab faatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam booy am yërmande ci sa néew xamal ni yonent bi moo la gën a yërëm ay néewam fuuf booy jaay sentiment moo la ëppi sentiment booy jaay baax moo la gën a baax ragal yàlla moo la gën a ragal yàlla xam taxut di wax xam-xam taxut di wax sa néew bi lii nga koy defal ndax yonent bi ba mu amee ay jarbaatam ak i soxnaam ak i doomam ak i mbokkam Hamza mam fonkoon ah est ce que noonu leen doon defal yonent bi de Musaa na am néew day wax nañ ko gaawal sang ko sang ci ni sunna jàngalee waxuma jël raakool roose comme li ngeen xam sang ko bu dee góor ñu dagg ko ñetti morceau amul nañ ko ko ñawal jarut ñaw dañ ko koy tegal rek lëmas ko ko ci digg bi lëmasaat ñaareel bi ut boo xam ne dafay gën a gudd ñu lëmas ko muy ñett bu dee góor bu dee jigéen ñu def ko juróom su dee jigéen la buñ koy sang lay sunna mooy nañ ko létt ay dàtt bàyyi ñett tëral ko létt yu mën a létt nañ ko firi létt ko létt yii doog koy sang wala buñ ko sangee ma noppi su fekkente ni jigéen la joo xamante ni létt wul woon suñ paree nañ ko létt loolu la yonent bi jàngale alayhi salaatu wasalaam suñu paree ñu sàng ko imaam bu koy jullee ci ndigg li lay taxaw bu dee jigéen la ca bopp ba côté bopp ba bu dee góor sang sang yóbbu ca armeel ya wàqi suuf yonent bi alayhi salaatu wasalaam musul am néew bu faatu mukk mu di ko wàcceel kaamil musul am wàcce kaamil sax fa la doya di am nag ndax alquran moom bu amoon nen nun ko war a jox yéegal kaamil sax lañ waroon wax waaye wàcce kaamil tur wa wuyu na borom loolu wàcce wàcce la wax nañ dëgg wàcce la mooy lu waroon a yéeg ca kaw ñu wàcce ko wax nañ dëgg ndax waa joo xamante nii sa waay alquran ji léegi sa waay mën na koo war a jàll tab tab tab ñu jàng ci alquran tarax-rax yi dem jooju alquran rubba qaari'in wal quranu yal'anu yéen sa salam musul jàngal ay néewam fukki xulwaak benn musul am déedéet iqra'u ala mawtaakum yaasin xadis la bu daif wérut yonent bi alayhi salaatu wa salaam amul benn néewam bu mu daan defal juróom-ñaari fan mbaa ña ñeent fukki fan mbaa at mi bu mu dellu see déedéet amut de leen daal la daan def mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala te bu daan ñaan it nag ba noppi daawut def nii déedéet xadis bi ci ñëw dafa daif yonent yàlla bi saa bu masaana ñaan. ci barab yam doon tàllal loxo bu tàllalee loxom ba pare day wàccewaat ay loxom sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li gën a dëgër ci sunnaam kon sunu borom mu ñu laqad kaana lakum nekk na di leen ñeel fii rasulillahi ci yonent yàlla bi uswatun xasana roy waay wu rafet te yii may nettali boo dellu woon tey ci kàgguy siyeer yi da ngay am ba doyal lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xamul ci yonent bi nag xamal ni yaa ko xamul laajal borom xam-xam dana la ko wax léegi nag bis ni ki tey nag bi nga jàngee aaya ji niital yonent bi ci sa kanam nga xool sa bopp lan nga nuraleeg moom ak lan nga wuuteeg moom di nga àtte sa bopp xam foo toll ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu borom mooy li man kaana ñeel koo xam ne yarju llaha mi ngi yaakaar ni dana dajeeg yàlla wal yawma al axiri ëllëg alaxira dana ñëw waaye wa dakara allaha kathira muy tudd yàlla tudd gu bari mbokk yonent bi dana tudd yàlla lu bari sallallahu alayhi wa sallam foo ko masaana fekk day tudd yàlla lu bari xam ngeen ni azkari sabaax yeeg masaa yi ah rek do doy lam tudd yàlla waxuma laak ya ca des astaghfirullah téeméeri yoon subhanallah téeméeri yoon alhamdulillah téeméeri yoon allahu akbar téeméeri yoon la ilaha illa wahdahu la sharika lahu téeméeri yoon subhanallah wa bihamdihi téeméeri yoon julli jant bi amul lim la hawla wala quwwata illa billah amul lim yii dama yaakaar ni ku ko bëgg a def suba def ko ngoon loolu rek doy na ci zikr waxuma laak nag yeneen yi am yi nga xam ne limuma ko bu ginaar sabee am na looy wax bu mbaam ngaaxee am na looy wax bu xaj bawee am na looy wax boo rombee ku am ab nattu am na looy wax bu tawee bu xiinee bu dënnoo booy tëdd booy lekk booy naan est-ce que yëpp xam nga ko est-ce que xam nga yi yëpp lan nga ca war a wax sooy génn sooy dugg si jël la ala sabili misaal ñaana dugg dëkk yonent yàlla bi nee na képp kuy dugg ci ab dëkk mu jàng allahuma rabb alsamawati sab'i wa ma adlalna wa rabb alardina sab'a wa ma aqlalna wa rabb alshayatini wa ma adlalna wa rabb alriyahi wa ma zarayna أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها musiba yi nekk ci dëkk bi yëpp yàlla dana cay aar yow barab boo ni cëpp nga ni أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق lalal sa basang tëdd xarangal nelaw yàlla moo lay garde Imaamul Bayhaqi nee na dama ko daan def fu ma mas a dem rek bi may sàkku xam-xam bala maa laal saak basang tëdd rek ma jàng ñaan boobu benn bis mu fàtte ko nee na dama tëdd rek jiit ji ni ma fàtt fet nee na bi ma nee bërit jug li ma njëkk xalaat mooy damaa fàtte def sama ñaan boobu tey allahu akbar mu ni keroog laa gën a fonkaat gën a wóoluwaat njàngale yonent bi alayhi salatu wasalaam kon gis nga li man kaana yarjul yawm al axir wa dakara allaha kathira di tudd yàlla lu bari suñu borom mu ni wa lamma raa ba ma gisee nag al muminu ni ñi gëm yàlla al ahzaba mbooloo yi ak na leen yàlla def gis nga de gaa yi dañ ni maa waadana allahu wa rasuluhu illa gurura yàlla ak yonent bi dañ ñoo wor ndax ñooñu doon wax di ngeen gañe kisraak di ngeen gañe xaysarak di ngeen gañe waa Rom ak wax ay wax te ñu ngi nii tey amuñ luñ lekk waaye ku gëm yàlla suñu borom ni wala ma raa bu mu gisee al muminuuna ñi gëm yàlla al ahzaba mboolooy ak ni leen suñu borom def jaxase leen salfaañi leen dàq leen qaalu dañoo wax ni hada lii nag maa waadana allahu wa rasuluhu lii la nu yàlla diggoon ak yonenteem allahu akbar wa ma zaadakum wa sadaqa allahu yàlla wax na dëgg wa rasuluhu akub yonenteem wa ma zaadakum dolliwu leen illa imaanan lu dul gën a ngëm wa tasliman ak gën a jébbalul yàlla subhanahu wa taala bi maanaa julli ñi bi ñu gisee ahzaab yi ni leen suñu borom def suñu borom nee na ñoom dañoo gën a gëmaat te mbokk yi xam ngeen ni ku gëm yàlla ndimbal yi ko suñu borom di defal da koy yokk ngëm ma jox la ci benn exemple gis nga nit ki bu tàggatoo ci góorgóorlu di ñaan yàlla yàlla di ko may gis nga jamono bu amee soxla di ñaan xelam day dal dafay kontaan ndax day gëm ni yàlla da koy may ndax tamal gi ko yàlla tamal nangu ñaan soo gisee ab julit di dëgër fit lii la parce que li ko yàlla tamal la moo tax muy dëgër fit hada ma waadana allahu wa rasuluhu lii la nu yàlla diggoon ak yonenteem gis nañ ko muy ndimbal wa sadaqa allahu wa rasuluhu yàlla wax na dëgg ak yonenteem wa ma zaadakum dolliwu leen illa imaanan dul gëm yàlla aaya ji min al ayati allati tadullu ala anna al imaana yazidu wa yanqus aaya ji bokk na ci aay yi wane pas-pasu ahlu sunna wal jamaa ndax xam ngeen ne xawaari jeeg ñeneen ñi mu'tazila yi ñoom seen ñii dañ naan ngëm yàlla daal du yokk du wàññeeku fa mu toll dong fa lay toll am na ñuy wax waxi dof naan sa ngëm yàlla ngëm yàlla jibril ñoo tolloo defe ngeen ne loolu mën naa nekk ah am na ñoo xam ne ñi ne dañaa ngëm yàlla day yokk waaye du wàññeeku waaye ngëm yàlla yazidu wa yanqus comme ni ko ibn abi zayd waxee ci muqaddimatu risala yazidu bi taat wa yanqusu bil maasi ngëm yàlla day yokk ngëm yàlla day wàññeeku say topp yàlla lu mu baree say naafila bari say woor bari say zikr bari ngay jàng alquran tey sarxe tey wax lu jubag di ko def di seeti ko feebar di topp ay néew di ziare armel sa ngëm yàlla di gën a yéeg ngëm yàlla nag moo kawar guy sax a yam ngëm yàlla moo kawar guy sax a yam de gis nga fi mu nekk nii boo watoon nel nga ni nii da ngay jékki-jékki rek da am bu muy ñagas waaw nga jékki-jékki seetu gis mu commencé jug nga jékki-jékki peñe man cee dugg xamoo kañ la sax gis nga ngëm yàlla bu yéeg noonu lay def da ngay jékki-jékki rek raa yéeg nii da ngay jékki-jékki rek sentir ni yow mi avancé nga tuuti waaye gis nga buy réussite nag kadaalika nag moom da ngay jékki-jékki rek fekk yaa ngay waaj a àgg asfala saafili ca suufa suuf ngay bërëm noonu lay réussite yazidu bi taa wa yanqusu maasi sa xool lu bon li sa wax lu dul dëgg gi sa wor gi sa bàyyi sa naafila yi sa yi nga doon nangam yooya day wàññi ngëm yàlla moo tax sunu borom mu ni wa za ma zaadakum dolliwu leen illa imaanan lu dul gën a gëm wa tasliman ak gën a jébbalul sunu borom ndax day gën a tax ñu gën a dëggal bi mawudillahi subhanahu wa taala kon mbokk yi nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq fi dunia wal axira yal na yàlla def alquran mu nekk rabia qulubina wa nuura sudurina wa jala ahzanina ñu ngi ñaan yàlla àjjana ak xéewalam waaye ñu ngi muslu ci moom sawara ak i bugalam noo ngi fàttali di mbokk yi ci waxtu koor la ñu nekk ci waxtu nangu ñaan la ñu nekk mbokk yi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam jullit bu toog xelam daj sa mbokkum jullit bi daharil gayb ngay tey daal ci misaal balaa maa dog tey xaaral ma ñaanal diw xaaral ma ñaanal diw man de maa ngi sàkku ngeen ñaanal ma yonent yàlla bi nee na boo nee xaaral ma ñaanal diw nga ñaanal ko yàlla day yebal benn malaaka malaaka bi naan amin wala yàlla na gudd fan malaaka bi ne yow it yàlla na nga gudd fan yàlla na yàlla barkeelal diw malaaka bi ne yàlla na yàlla barkeelal la diw daal dëgg dëgg dëgg dëgg yéene naa ko jàmm malaaka bi ne yow it yàlla na yàlla yéene la jàmm loolu ñaanal sa mbokkum julli malaaka bi ne amin walak kon mbokk yi nañuy fàttali konte di ñaanalante ànd gi li koy dëgëral bokk na ci mooy di ñaanalante imaamu Shafii nee na si yaa axi yaa axi yaa axi joo xam ni balaa nga laa ñaanal nga ni ko yaa axi bu ma fàtte ci ñaan mu ne xarit boo xam ni balaa mu laa ñaanal nga ni ko bul ma fàtte kooku matul xarit allahu akbar ak wax dëgg xarit boo xam ne balaa mu laa ñaanal faw nga ni ko bul ma fàtte imaamu Shafii nee na am naa juróom ñaar fukki soppe yi ma xam yoo xam ni dama leen di ñaanal ci sujud te damay tudd seeni tur sax léeg-léeg ah doomu imam Ahmad ibnu Hanbal nee na damaa seetlu sama bàyyi boo wax mu ni imam Shafii loo wax mu ni Shafii buy ñaan sax day ñaanal Shafii ba man may lijjanti kan mooy imam Shafii ci kaw suuf kon mbokk yi ñu bañ a fàttante ci di ñaanalante kenn ku ci nekk muy ñaanal mbokkum jullitam bi zahril gayb te it muy ñaan ay soxlaam ci jamono bi muy taw ndax waxtu nangu ñaan la jamono bi muy xëdd ndax jamono nuzulur rahmani ila samai dunia la waaye jamono bi muy dog ndax waxtu nangu ñaan la mu ngi ñaan suñu borom mu yërëm ñu fi dunia wal axira allahuma surna fawqa al ard wa taxta al ard wa yowma al ard alayk wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi